boo bëggee dégg dëgg waaw Balla bi ma ko gisee dama yaakaar ne Mor Kankang lay préparé wala kii ñu koy waxee Tafa Mbër wala insecte dañoo juum ci tafaay tafaatin ak Tafa Mbër si diamétralement <laughs> si entraînement bi Balla Gaye andi <laughs> jàmbaar dama ne combat fu amee da xool sa adversaire ni toll

waatin lii damay taxaw lamb remise la ak lamb xaar tër mën na ni téye bala nga kërti kërti ba sonn ma daan la bala dofut dina jàpp ko war na xam sax lu mu lu mu porteur <laughs> jëm bopp bi gisee Balla <laughs> ah baax na ci santé wu Balla ça le résume yi mu doonaat jeune mais dama ne la ci côté performance sportive diggante ak Tapha Tine dana bu doon dajee ak Modou Lo nga ne ok ça au moins c'est un peu comparable bu doon daje ak Eumeu Sène nga ne ok c'est un peu comparable mais Tapha lay daje. lu Tapha am problème mu mental mental état de forme bii Balla yor Tapha waru koo a ragal ah bu ah, nga gis bu ko bëree Tapha Tine da si am ay problème. Faaw déggoo li ma wax li ma la wax dafa dama ne la lii bu moom Tapha da ko war a jàpp tànc ko ba mu nooy daan ko nappaaja bi muy wax da ko war a def lii bu yóbbee lii ci làmb ji taxaw duma ko daan ko solo waay ah ngaay par parloo bi tey wax dëgg kii nee na Balla il peut pas lutter en étant poids lourd waaw kooku nekkoon moom moo yor dossier médicalu Balla da ko lu jëndiwul ko non mais ko su question la de pour waaw ah, répondre naa ko c'est que question yoo xam ne c'est bête il faut répondre bête ñun sport bu sport bi ñuy wax dañ un wax vous la adversaire bu que kilos poids yow ñëw au moins 130 kilos wala 125 kilos différence du bëri bu nga en mouvement ça marche mais bu nga nekkee fixe du dox lay wax sport lañ lay ni fi di di tâtonner wuñ li ñuy dañ koo xam dañ koo maîtriser ci walum jël poids walum poids xam ko en deux semaines mën nga jël poids bu immense bu baax bon gras. ay hmm. xel une dafa am wax couper le poids moy kët nga le couper poids bi le muscle mais dama la bo tu ci combat bu melni ne diggante da nga wara a adversaire nim toll. bal musculaire meilleur tu nga préparer, combat adversaire un avant bras la pour pour euh, pour pour grandeur avant bras ce cuisse dafay joué ci càgganu ki ngay bëreel loxo bi nu mu toll. ñebe mm-hmm. ngemb da ngay xool loxo mbër bi war a jàpp sa ngemb ngemb li noonu ngemb bu doon rek ngemb mudloo yu euh, euh, ngemb yooyu noonu nga xam ne loxo mudloo yu ndaw yi da dugg facilement loxo yu ngand yi du gaaw a dugg day métti pour mu dugal te boo ko fekkee mu faxe yaa ngi comprendre dafa am loo xam ne ni xool étude la mbër da nga koy yooyu da loolu di ma la wax nii xool su waaj sport la yaa ngi par détail waa ndax buma ma laalee cuisse bi grosseur cuisse manam muscle est-ce que suma jappé dana danaa mën a gras danaa mën tenir bu baax non du ma tenir parce que muscle bi nim ngandé suma su sama loxo dama koy ñak yooyu yëpp dañ koy calculer moo tax ma ne INSEP dañoo juum dañoo waroon a xool Tapha li mu mel soo ko préparé Balla doo ñëw rek wàññi poids wu Balla nee nañ ko wàññi poids parce que Balla ngay problème poids la mo nga wàññi ko mais préparer woo ko en conséquence ki mu war a bëre dañu waxoon dëgg dañu juum man maa ko wax te fort laa wax nii. loolu dëgg bi am loo xam c'est logique sport laa wax du càgg ne Tapha la Fara wala Balla la déedéet sport laa lay ci ñaar ñëpp. mais est-ce que est-ce que waa ñu nekkul stratégie. frérot wàññi musul doon stratégie ak xam nga lool. Bo wàññee poids bo nit ko poids hmm. poids poids rapidité Les rapidité plus puissance bi nga yor mom moy def da am doole doole ji ngay am du comparer ak bi nga poids ci rapidité y a une différence Ni koy poser. C'est pas même poids koy mën ngaa wàññi poids ñàkk ñàkk puissance lan moo tax parce que yow mentalement yow sa jëmmi bopp boo xoolee ci miroir ni nga tolloon da ngay am confiance ci ni nga tolloon doole ji nga amoon nga wàññi poids nag mentalement day joué ne pourtant xool sa adversaire ni mu toll yow ñaata mbëri ñoo ñëw ci làmb ji xool sa adversaire ni mu toll ñu xam na ne boo bëggee dégg-dëgg waa ji moom doole nañu waxante dëgg. Hmm. fii kenn ku ne xam nga ku lépp doole quand même am na ñoo xam ne doole suuf lañ yor am na ñoo xam ne doole kaw lañ yor. tabaati néew la wu dooley suuf nii dooley kaw nañu waxoon dëgg. kon coach yow da nga jàpp ni tabaati poids léger mënul si moom dara. waaye yow dama jàmbaar dégg ma wax tabaati poids léger warul mën ci moom tous tous laa la wax booy ñaar ñu nii poids léger la woon lu mu te booy ñaar bi bëree woon a tabaati bi bëree moo gën a taxaw Balla bi dañu wax dëgg. moo gën a doon booy gën koo taxaw nañu waxoon dëgg te tabaati bële pare wu ñu toon bi doon bëree ak ak booy indi fa woon forme bu baax nañu waxante dëgg logique dafa am nañ bàyyi di nelaw nelaw tey wax dëgg ah. yow ñoom ñaar seen préparation neexu la parce que waxoon nga Tapha Tine entraînement yi ñu koy entraîné entraînement bodybuilder. waaw moo tax ma ne la fekk Tapha Tine entraînement yi muy entraîné gis ci moom ñëw ñëw ruur la ñëw ruur xam nga ruur ne mi taxaw topp la tëf tëf nga ne përët mu ball la tëy la. nga kër ci ba sonn mu jekkalu ci benn place daan na ci dox doxo wala mu dóor la ba nga wàcc loolu la Tapha yor yor leneen lu dul loolu bul ci kenn nax. am dara jàmbaar xanaa déggoo la ma la ci din contact yëpp bu ci jëlul mars maanaam bala Gaye bu respecté wul lekk jël ci mars du am dara ci combat bi du ko tous. Sénégal ak ñoo sonn da gis nit ku lay topp di